comité d'organisation bu gàmmu bu Tivaouane démb nag euh, daje nañu ak nga xam ne moom mooy préfet dëkk ba di Mamadou Guèye ngir daal ñu waxtaanee waajtaayu li nga xam ne moom mooy gàmmu googu nga xam ne day dalal ligg ñu bëree foofu foofale ca Tivaouane ñu xool nag ana nan mën a teelee jël ay euh, mesures ci li nga xam ne moom mooy problème. yi nga xam ne kon euh, war naa mun a am ci boobule euh, daje ki nga xam ne nag moom mooy xalif général des Tidianes di Serigne Babacar Sy Mansour dañ ko fa teewaloon. accident moo am ci Kaffrine ba suba tey bi ba lu toll si ñeenti nit ñàkk ci seen bakkan ñu ne nag ñaari bus daal euh, nga xam ne sax bokkuñu fi ñu doon jógee ñoom ñoo daje. bëkkante kon bëkkante bu métti boobu euh, ba jiyee jooju am ñu ne li ko waral nag dafa amoon benn camion boo xam ne dafa paanoon taxaw ci kaw tali bi te sax amuloon lii di signalisation ñetti weer gannaaw bi ñu ko lancé li nga xam ne moom mooy projet euh, bu cash transfert nga xam ne nag lu toll ci cinq cent quarante trois mille ci ay famille dañoo waroon jot ay koppar lu toll ci quatre vingt mille francs CFA nee nañ euh, résultat yi nga xam ne kon moom lañ ci doon séntu. amaguñu ko li ko waral nag euh, moom mooy euh, bu ñu sukkandikoo suñu naataango yu journal Le Quotidien dafa am lu toll ci 48 pour cent ci ñi nga xam ne waroon nañ jot seeni i koppar ba fi mu nekk nii jotaguñu ko. xibaaru Afrique benn ponk lay doon muy euh, lakk yooyu nga xam ne dafa am fële ca Algérie mercredi ak jeudi te nag jot faa lakk lu bëri lu toll ci ay. Euh, gàncax euh, wante itam euh, lu toll ci 38 personnes ñàkk seen bakkan ñu ne nag fi mu nekk nii lakk ya fay nañ leen ba ñu jeex bu sukkandikoo ci ab responsable boo xam ne mu ngi nekk ci protection civile foofule ci Algérie. xibaaru bitim réew it benn ponk lay doon moom la ñuy jeexale ñu ne nag ab palestinien boo xam ne dañu ko gaañoon dañu ko gaañoon kon. Euh, tey jii sax ci vendredi ci ci ajuma ji ci suba euh, te sax ñi ko gaañ di ay euh, takk der yi nga xam ne kon ñoom ñooy israéliens yi ñoo ko dóoroon ban rayel ba mu jëlee ci ay gaañu-gaañu ñu ne moom nag dafa ñàkk bakkanam mbir mi mu ngi amee fële si Jordanie fa ñu occupé ñu ne nag ki leen bi lay xibaar nag moom mooy ministère palestinien de la santé ki génn àdduna nag mu ngi amoon cinquante huit ans mu ngi génnee nag àdduna kon ci dëkk euh, bu ñuy wax euh, Touba bokk la nag bokkul nag kon ak Touba bu Sénégal li ñu tey jaay xibaar rafetlu seen teewlu li ñu jox daje ëllëg jaa ngeen